salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñi nga xamante ni ñoo safoo xéwal TV ñu di leen di wax seen émission boobu nga xam ni yéen ko bëggal seen bopp muy cey Serigne Touba fan yu néew day dellu si ndaxte kenn ci ñoom dafa génn li nga xamante ni que ni mooy réew daal di tukki ba tax na fan yu néew rek incha allah dinañ indiwaat émission bi nga xamante ni que ni mooy cey Serigne ak yeneeni waxtaan yoo xamante ni que ni macha allah lay doon fii ci xéwal TV ñu leen di jaajëfal. يبارز المنتظم بارز من